qui sont formulées contre la société civile société civile doole bi mu amoon dans les années 2000 Euh, jusqu'en 2012 même euh, doole bi dafa wàññeeku y docteur peu d'acteurs maintenant euh, ñoo nekk sur le sur le terrain après mu am beneen fléau boo xam ne société civile bi parfois voilà ñii dañ jaar fii ñii jaar fële waa nguur gi dañ naan on a bu société civile waxee rappeler Euh, le respect la nécessité de respecter les règles ñu ne wooy c'est une société civile partisane mhm. parfois aussi mu am beneen société mhm. civile boo xam ne nee nañ elle est proche du du pouvoir ñoom bu ñu waxee tamit waa opposition bi ñi leen euh, booy càmbar euh, situation wu société civile bi euh, lan mooy doon sa ja sa diagnostic. suma diagnostic mooy que vraiment pour wax dëgg société civile dooleem ak positionnement am activité yi wàññeeku na mu bëri effectivement ñun bi ñu soog a commencé ba 2000 ba même après 2000 parce que Ablaye Wade joxoon nañu yu métti. am na fu ñoom fu pouvoir bi tegoon société civile même bu ñu doon critiquer même bu ñu doon critiquer donc vraiment on avait beaucoup d'impact et en plus en plus de y une grosse contribution la société civile. dans la survenue de la première alternance non seulement dans la la première alternance mais même dafa am lu société civile indi si indi Sénégal ci yu bëri peut-être ngi xamuñu ko li société civile di Sénégal amul benn parti politique bu koy Sénégal tey bu ñu wax fii bonne gouvernance société civile moo ko fi indi bu ñu wax transparence société civile moo ko fi indi lutte contre la corruption c'est lu moo ko fi indi marché public code de marché public c'est lu moo fi indi yi structuré tey li ñuy wax gouvernant Sénégal yëpp société civile moo ko fi indi nag société civile moo ko fi indi donc quand même c'est une grosse contribution et on était très attentif c'est-à-dire dañ nag mais nag dañ ko tegoon ci lu dëgër mais dañ daan surveiller les politiques publiques mais avec ay des nit ñu am xam-xam balaa ñu daan wax du ñu toog rek xëy wax dana am tey réagir peut-être réseau yi moo tax tey lu wax rek nit ñi wax dañ naa toog analyser ko génn ay déclaration yu dëgër mais tout à fait mais en étant ouvert ñun par exemple je me rappelle sur les marchés publics on a travaillé de d'arrache-pied ak le ministère de finances pour génn le code de marchés publics on nous a associé à ça évolution boobu nag tey bu ñu constaté man li ma xam ne dama ko gis société civile te peut-être neexuma ci évolution boobu mooy société civile bi dafa xaw a professionnaliser c'est-à-dire. cest que des personnes yoo xam ne seen activité yëpp société civile. amuñu beneen activité connexe. voilà loolu lay problème bi c'est-à-dire que bu fekkee na nga nekk organisation boo yor loolu rek mooy sa activité foofu ngay xëy foofu ngay gontu foofu nga am sa administration foofu nga am sa ay ay ñu fay liggéey da ngay foog nga wut ay programme foog nga wut lu dundal mbir mi. connivence bi dina dafa bari détournement d'objectif bi dafa bari. c'est-à-dire bon. du duma du ma loolu mais li may wax rek mooy euh, dafa am benn affaire bu pernicieux si diggante société civile gouvernement ay bailleurs de fonds parce que bailleurs de fonds dañu mobiliser xaalis pour mën ko dépenser dans les pays su développés foog ñu am ay partenaire société civile yoo xam ne ñoom ñooy seen relais ci pays sud ci pays du sud gouvernement yi léegi ils sont obligés ñun ba ñu commencé société civile société civile on lui reconnaît place suñu action dem na ba lu ñu taxawal léegi c'est des sociétés civiles maintenant ces positions yi quelquefois c'est des position dictées non pas dictées mais positions yoo xam ne dafa am intérêt ci biir des intérêts pécuniaires tey bu ñu nee euh, euh, euh, OFNAC ñu ne fa nga dugal kenn société civile il est rémunéré bu ñu nekk euh, euh, euh, conseil économique social et environnemental ñu dugal société civile ak yeneen ak yeneen. c'est c'est voilà do donc donc yooyu dafa indi yeneen enjeu si biir dafay indi yeneen enjeu ah, donc diggante dafa am benn espèce su comme li may wax diggante bailleur de fonds société civile gouvernement. benn benn benn benn. un cercle vicieux. waaw benn cercle vicieux bu s'est installé wu tuuti. donc organisation bu vigilantul rek. affaire boobu daf lay da ngay tam